jërë ngeen jëfati mbokk yi ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax ci àndin beeg wéttiliku gi du ñu jóg ci daa mbégte kontaante saa su ne ci daa am ngeen ci ay jotaay ñuy am mbégte bu amul àpp tey suñu jotaay ñu ciy ànd ak suñu yaay joo xam ne vraiment xam nañ ko bu baax a baax sur la culture sénégalaise xam aussi taxawaayam ci li nga xam ne mooy la culture sénégalaise ñu xamee woon ko ko xale yi a ràññewee mooy bi nga xamoon na ko mu tudd Buzz di am ak jotaay de son vrai nom Tata Marème Niang xanaa rek pour commencer euh, Tata Marème maa ngi lay gërëmaat bu baax a baax pour la deuxième fois <laughs> rédaction seen Buzz di am ak yow jotaay ñu ngi ci am mbégte di la gërëm aussi bu baax a baax vraiment ci disponibilité bi euh, alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum waa seen buzz jërëjëf ngi leen di nuyu di leen ziara di nga seen wàccuwaay mm-hmm. waaw comme ni nga ko am contentement rek leen recevoir fii si sama kër mbégteeg bànneex rek laa ci am parce que tamit euh, nit ñi xam yaay kan xam li ngay def mooy lan ngoon yéen solo ma pour interview ma dama ciy sawar dama ciy kontaan parce que yéen mën leen dem bi nga xamee moo dal ci seen kaw kenn ci yéen ñu xamoon ko aussi ak troupe daaray Kocc muy suñu Tata Aïda Dramé mi fi jugee ni ki démb mhm. mu nekkoon sa xarit nekk koo xam ni xamoon nga ko pour commencer maa ngi lay jaale di la masaw bu baax a baax ci ci li mu fi jógee. waaw maa ngi lay delloo njaal mi bu baax a baax a baax a baax def naa ne euh, bu ñuy massaw ñun ñëpp la ñu war a wu ndax mi bi ñoo ko bokk ngoon bu kenn wàññi ko suñu dog mel ni ñun ñëpp ñoo bokk naxar bi mhm. effectivement ñun ñoo ko bokk mu nekk euh, perte bu nga xam ne metti na lool tamit diis na tamit ndax euh, Aida nit la koo xam ne kii daara ko ci la sosoo mhm. fa la nekkoon ak ñu nekk bu rafet aussi wax dëgg yàlla muy nit ku baax nit ko am yitte si doomu aadama. Hmm. nit boo xam ne boo ko gisee ay da bañam ngay jëkk gis koo xam ne amul xaar ma yàlla kenn. Hmm. ngoon tey su wàññeekoo si suñu biir dafay nekk beneen manquant boo xam ne dañ koy ressentir daf ñuy metti hmm. di metti tamit képp koo xam ne nga artiste nga ci ci dëkk Sénégal. ngoon masaw bi ñu ngi koy masawu ñëpp di jàll képp ko xam ne artiste nga hmm. di jàll tamit képp ko xam ne yaa ngi nekk daaray Kocc hmm. ndax Aida ñëpp daaray Kocc lañ ko gis quand muy liggéey ci lii di cinéma moom Tata Aida Dramé mais dañ xëy bi ñu annoncé décès am ñu bari dañu ni ndax dafa feebaroon ak hmm. a xam-xam ñëpp rek Sénégal moom léegi ñëpp a feebar dañuy feebar di dem waale moom dafa feebaroon wax dëgg yàlla ba tane woon na nag quand même tane woon na continuer woon activité am ci activité boppam macha allah mais yàlla moom bu la bëggee jël liñ naan da lay wéral hmm. ba nga wér mu ñëw ak dooleem macha allah nag euh, dañ koy gërëme yàlla di ko sant yàlla ndax ñun ñëpp si yàlla njëg si moom la ñuy dellu. Mm-hmm. waaw Aïda moom wax dëgg yàlla tane woon na ba ñu amoon si yaakaar ndax mm-hmm. tëralu ko woon tër bu tax ñuy ah, wax. mu ngi doon dox ay soxlaam nekk ci activité d'ailleurs sax mu ngi doon nekk ci benn série bu muy tourné série bi bi daaneel ko mu tëdd yàlla def li gën ci moom. Mm-hmm. waaw loolu moom wax dëgg yàlla mu nekk si ñëpp tamit ndax yenn saa sax nit dina feebar wér jug dox ay soxlaam waaye tamit nit dina feebar yaak duñ ko foogale fenn yàlla jël bakkanam dëgg la euh, te loolu moo ngi dal ci ci ci ci hmm. Aïda Dramé hmm. wax dëgg yàlla feeb mujj bi muy tëdd nag sax kaa yëguma ko sax hmm. wóor na Seydina Mohamed yëguma sax na tëddaat na yëguma ko dama toog jamono yi rek sama xel nekk ci mën a waa man de Aïda dama ko jë dégg xam si nekk ni mu ngi si activités yi rek si kii yeeg yooyu am ko ne moom Aïda de mu ngi tourné benn série man ak abo mun naa man ko moon alhamdulilahi rabil alamina man foofu laa ko jàpp ba na ma Aida décédé na. Mm. loolu rek laa ci am. Mm. wax dëgg yàlla mu nekk métit métit métti betteel te doo xam noo koy noo daf lay daf lay fekk foo xam ne fii man tournage la ma fekk day bu may wo euh, Mariama Balde moom moo mënuma taamareem. Mm-hmm. non def foo ne ma ne ko man maa ngi ni tournage mënuma ah ngoon ma xaaral ma coupé ma ne ko non oo nga ba pare tournoo dama pause mënuma ah dañu wax fii léegi dina Aida Dramé dafa gaañu. mën a teg mu yàgg mën ko Mariama est-ce que c'est sûr li ngay mm-hmm. ngi gars dañuy wax rek de dañuy tàgg nit fekk sax deewul mu ne ma bii de taamare am na ma ne am na mun a waaw mm-hmm. foofu nag dama na teg teg ba mu yàgg mu naan allo allo allo ma ne ko Mariama maa ngi fi c' est que li nga ma wax nii moom laay analyser quoi. Mm. parce que daf ma mm. bett mm. waaw. après si naan ko wax nga Pape Demba mu ne wax naa ko toog na Pape Demba mën naa la ko wax sax nga dugal ko ci groupe daaray d' accord mën na ko waat d' ci bi. nit ñi commencé intervenir de gauche à ñu dugal ko Facebook fu ne ñu dugal ko fa. d'accord ba affaire bi tasaaroo. d'accord très bien alors bala maa ñëw ci sa digganteeg moom Tata bari na vraiment lu ñuy déplorer bu amee artiste bu fi jóge wala ñu bari di xalaat ni. xëy na manque d'assistance maanaam manque de jàppale bokk na ci li ko yóbbu. Mhm. Mhm. ndax xalaatoo ni loolu am na ci kaw kii di. non non non non non non non non je ne mhm. crois pas. amul amul parce que tamit xam nga nit. nit ki da nga am ay mbokk am ay xarit am ay àndandoo am ay dëkkandoo. yor na njabootam. yor na tam yu jigéen yor na tam bu góor euh, feebar na taxawu nañ ko ay mbokkam taxawu nañ ko ay mm-hmm. doomam taxawu nañ ko ay am di jàmmam taxawu nañ ko xam nga àddina bi ñun dañuy nekk ay artistes xam ne bu ñu feebaree parce que sa normal aussi ñu ay artistes lañ que ñu feebar euh, ni ñi di wax du n'importe quoi xam na bu njëkk ba sax ket yi nga doon wax noonu daan naan am bu njëkk ba parce que c'était un peu difficile quand même mais léegi euh, daanaka nit ko bu feebaree sax bëgguñ sax feebaram di siiw. Mm-hmm. parce que bu xasee ba siiw rek nit ñi dañuy dañuy jëkk xalaat mooy dañ leen ñu kettal ko. Mm-hmm. fekk ñun affaire ket boobu sax mosuñoo neex. wóor na yàlla mosuñoo neex dañ nga mas a déploré rek pour que artiste feebar ñu koy katal mhm. ndax artiste bi dëgg la day métti feebar toll foo xam ne fii bu sa doole euh, pour nit dimbali la foog ñu siwtaane sa feebar ndax yenn saa yi nga am feebar boo xam ne dafay xaw a doy waar mais am na feebar yoo xam ne jarul sax ñu koy siwtaane wala jarul sax ñu koy ketal waaw am na feebar ndax nit mën na sibóoru tey ëllëg mhm. mu dem xam nga ko jarul ñu koy ketal ndax ki koy ketal mooy ki nga xam ne leer na la xëj na feebar ndax feebar bi dafay yàgg day metti mm-hmm. xëj na frais day metti day dem ba jóg dutu ko poosam dutu ko antal wala ay mbokkam poosam seen poos dutu ko antal mm-hmm. xëj na bu ko raggee sax mun na feebar na ay mbokk ay xarit ñi xam ne am nañ yéene ci moom ñi xam ne bëggul nañ ko ci ci bi mu nekkee acteur bi mu nekkee actrice mm-hmm. xëy na yor seen dërëm def ko ci moom pour bëgg yàlla saafaraal ko loolu mënuñu ko bañ mënuñu ko bañ mais du ñëpp la ñu koy defal te du ñëpp tamit ñooy suutaane seen feebar ndax ay da feebaram bi bi ko attaqué ni ba mu dem ni ñun yëguñu ko ñu jógu jóg li may mujj wax wax naa ko léegi ma koy mujj euh, lijjanti dañ na moom ngi nekk si benn série di tournée c'est ça waaw loolu tax bi mu gaañoo aussi ma yëg ko daf ma bett daal daf ma mhm. bett waaw mhm. alors ndax vraiment am na ay relation particulière yoo xam ni amoon na sa diggante ak moom waaw parce que ayda mhm. bi mu ñëw daaree ko ci fa la ma fekk bi mu ñëw daaree ko ci fa la ma fekk mais fekk na booba euh, yaayam dundatul papaam dundatul yàgg nañ ma moom mu nekkoon ma nekkoon confidentam nag muy mm. waxtaan ak man lu bëri bëri bëri bëri bëri ci famille am di waxtaan man lu bëri bëri bëri bëri ci vie loolu nag xëy na boo ko gisee xëy na confiance manque de confiance mu amoon ci man moo tax ñu daan waxtaan ci vie lu bëri bëri mm-hmm. bëri bëri bëri mm-hmm. mais saa yi ñu waxtaanee tamit dama koy conseiller parce que je me mets sa place comme quoi que tey fii mu nekk toll ni bu fekkoon moom fa toll aussi day metti ci man xam nga mais mm-hmm. heureusement elle sa famille doomam ak si wetam ay mbokk ma ngi woon ci wetam. Mm-hmm. mais booba doom yi ay xale lañ sant yàlla bi nga xamee ne xale yi màgg nañ ne mhm. kii am jabar ñi am jëkkër loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax a daal jaar-jaar mhm. la ku nekk da xam ne fi day xaw a difficile sa wet day difficile si yow boo amulee ku la mën a jàppale ku mën a dëfal ku la mën a conseil day gën a metti mais heureusement pour elle ñu ngi woon à de lui ñu ngi doon waxtaan moom di ko fak moom mhm. ba nga xam ne sax yenn saa yi bu ñu daan euh, dem festival ak yooyu day ànd ak ñun bi ma koy mujjee ànd moom ñaari festival lañ mujjeen dem dañu toog di waxtaan nii mun ma yii man de damaa kontaan tey bi ma la gisee nii ma naka yow yow doo changé mun ma non mm-hmm. dama bëgg di génne di féexal sama xol yii bu amatee ma ko ma ànd ak yéen féexal sama da nga war a bàyyi stressé mm-hmm. a bàyyi stressé mun ma non dama ko dul yëg su ma ko yëgee damay ñëw ñaari festival yu mujj ñu ànd campement ak Mbàkke ñoo nekk ndaw woon day gis naa sax gars yi Euh, vidéo yi nga xam ne defoon nañ ko fële. mba hmm. euh, campement gis naa gars yi sax di ko distribuer ci ci ci ci. whatsapp bi waaw wax yalla hmm. muy benn femme bu nekk campement yi def ko euh, chaque festival. Hmm. ñu àndoon fa ak moom. d'ailleurs ak suñu beneen femme tamit xam la. moom hmm. ndax la dëkkoon moom tamit mois bi passé la gaañu. moo ay de seen ñaari photo sax la gars di dugal ndeysaan noonu si groupe hmm. waaw hmm. xam nga àdduna daal dafa xaw metti daal. mais nag lu mu metti metti soo amee ñoo xam ne mën nga sukkandiku si ñoom wala wéeru si ñoom. man wax la seen problème parce que problème kenn du ko denc. problème boo ko dencee daf lay gaañ te nit ñi war nañ xam ne problème dañ koy séddu ak say xarit ak ay yàlla ku baaxoon la. ku mënoon defante ak nit ñi. Mhm. ku mënoon defante ak nit ñi jëf lu baax ba alalam du ko boole kenn tamit. waaye da day jékki-jékki dugal benn vidéo ak ay sëtam muy fecc di tëb di dal si si sana ma nag ma koy ko ma ree bëggee ma ne ko waa Ayda mhm. Ayda yaa ngi xàppi di mu ne ma yii fi nekk may wéttali sama sëddi ñoo may wéete demoo fenn su demul tournage fii laay nekk sama nekk maax sama sëddi di bañ a wala ma mhm. dal na xel loolu tamit jar naa sant yàlla bu baax a baax a baax alors Tata mhm. Marème Niang moom la seen di am ak jotaay bëgg naa mhm. aussi nga wax ma un petit peu donte ni jamono ji ay mouvement moom bariwul amul benn activité culturelle boo xam ne en tout cas groupe bi ñu ngi koy def mais dafa am familialité boo xam ni waxtu naqar amee wala bànneex am seen diggante dañ koy faral di gis artiste daaray Kocc yëpp bu boobaa dañuy présenté wu loolu aussi lan lay wone pour yow waaw xam nga tongaan ñun. Mm-hmm. li ma koy wax chaque fois rek ñun daaray Koty. Mm-hmm. du ñu du ñu dox daje léegi famille lañ. Mm-hmm. famille ma xam ne dañuy dañuy dañuy ay njëkkee. di defante ay ndeyale si suñu biir. daare ko ci nekk na famille boo xam ne bi euh, ñu ngi ñaanal seet Tidiane Diop yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi amiin yëpp amiin yaa rabbi gaare ko ci famille boo xam ne mhm. euh, nekkatul comme ni nga ko waxee dox daje ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi sa bànneex moo suñu bànneex sa naxar moo suñu naxar mhm. suñu groupe WhatsApp boo fa duggee da nga yaakaar ne ñun chaque jour ñu ngi toog di waxtaan da nga yaakaar ne chaque jour ñu ngi toog nii tellement que xamante nañ miinante nañ ni nga wax ma rectifier tuuti daal ko ci dëgg amoon nay temps liggéeyul. Mhm. Euh, ñu ko doon déplorer trop parce que dañu mhm. ko ci nekk na en ni ah, ah, <laughs> uh-huh. ñu ñaanal ñu. Mhm. ñu ñaanal ñu mu gën a jëm ci gën a jëm ci parce que daara ko ci tamit rek mhm. nekk na trouble boo xam ne du trouble bu a bàyyi mu dee mais loolu sénégalais yëpp kaddu googu man yóbbante nañ ma plusieurs fois mhm. ku ma toog aussi dinaa la wax choix bi sénégalais yi am mais aussi li ñu yàkkamtee ko ci aussi dëgg la dëgg la dëgg la <laughs> seulement bëggoon nañ ko def bu yàgg nag uh-huh. mais xam nga manque xaalis bi moo di woon problème bi d'accord d' argent mais sant daal di ñu ngi ñafe di yëg ndànk ndànk di daal mhm. euh, di demandoo di ñëwandoo

doomu Aïda Dramé bi mhm. nee na suba si dimanche bi mhm. après tisbaar lañ koy rob yoof ñu yemale yëpp mu jeex mhm. noonu la góor ñi tamit xëy dem. d'accord ànd ak ñoom sa tab bi ñun jigéen ñi bi nekk très muy lu am solo suñu tata Marème Niang maire Thiaba moom la seen bés di am ak jotaay tata pour génn ci loolu bëgg naa aussi nga wax ma euh, tey yéen li ngeen jot liggéey si culture sénégalaise tey euh, bu ñu demee ba nga xamee ni production yi xew léegi yu ci baari buy door a commencé dafay indi dafay indi polémique. Mhm. bu ma jëlee exemple rek série bi nga xamee ni jamono ji mooy daw muy bete bete. Mhm. thème bi ak yenn paroles yi ñu baree bari ñu ngi koy ñu ngi koy faral di ko mhm. di ko di ko naqarlu ndax jàngale culture fi mu toll nii ba léegi sénégalais yi gaawuñu ko adopté di leen critiquer gu demee noonu foofu la sénégalais yi waroon a toll ak yéen. waaw mooy lu ñuy wax rek nga Sénégal. mu mhm. nekk dëkk boo xam ne euh, pour nga avancer fii si côté culture dafay xaw a difficile. Mhm. te c'est c'est euh, dafay difficile parce que tamit dañu enraciné wul bu baax parce que ñu dañu suñu aada ak suñu cosaan. Mhm. dañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi. te dañu war a ànd suñu aada suñu cosaan. effectivement parce que tamit dañ na boo bàyyi sa cosaan jël cosaanu jàmbur da ngay réer. Mhm. mais quand même ñun fi niveau bi cinéma toll niveau bi série toll war nañ am yenn dépassement yi. du dëgg critique yi ñuy deg suñu kaw yenn sa yi ñuy wax artiste bi. ay mots yu déplacé di ko xas di ko yàq musiba naaru laay mais ki ñu war a xas du artiste bi de. Hmm. scénariste bi réalisateur bi nga xam ne moo bind ay moom jox ko ndaw si. Hmm. jox ki nag bindal waxal ma lii laa bëgg parce que xam nga boo xasee ba signé contrat. surtout hmm. série léegi. du du du histoire bi yëpp leen lay jox. li may déplorer chaque jour du seul histoire bi lañ lay jox la naan histoire bi daal synopsis bi nii la nii la nii la nii la hmm. yow yaay joué rôle yaay wala yaay joué rôle bàjjen hmm. waaw nii laa bëgg nga am nga si ñaar doom wala nga si benn doom nangam nangam dugg na fi génn fi euh, waaw ñu ngi lay fay nag journée nangam wala ñu ngi lay fay weer nangam cachet nangam genre waaw nga d'accord signé sa sa contrat après boo xasee ba signé sa contrat rek gars yi condamné nañ la hmm. moom le réalisateur en tant que sénégalais. le séné le scénariste en tant que sénégalais. Mhm. moo war a xam lu jaadu ak lu jaadu mu war ko wax la ki nga xam ne mooy interprète bi. parce que souvent interprète bi la ñuy duggal. Mhm. moom la ñuy indil problème boo xam ne bu ëllëgee. moom day day métti ci moom. absolument te pourtant moom bi deful dara. deful dara moom dañ ko bindal waxal naka waxal lii nga mhm. wax. waaw am na ñoo xam ne nag scénariste bi sant moom lay def. moom lay def moom lay def. mais nag quand ak lu mu la sant sant sant sant am na foo xam ne man bu ma fa bëggee dugal du ma fa dugg.

daf may arrivé. Mhm. ma dem fenn war a joué ñu indil ma baat boo xam ne bi daf may leer na kii su ma ko waxee peut-être yow du la jariñ dara du la mhm. metti mhm. mais am na kuy seetaan si biti peut-être daf koy frappé daf koy touché te ñun ñu defee a nga naka awa ah, nga dëgg de xalaatee ñu defee ko nga wax nga ne nii ñu xool ba na mu gën a rafetee ñu def ko ça arrive mais fekkee dafa nekk réalisateur boo nga xam ne wala scénariste boo xam ne bi dafa mm-hmm. dëgër bopp mm-hmm. du nangu da lay dugal si guute goo xam ne tam nga sax ma ah man day sama film nii laa ko bëgg nga defal ma ko parce que dama signé contrat ce qui est très grave xam nga. ok loolu rafetul. te ñu ñëpp ay doomu aadama la Sénégal lañ dëkk te ay mbokk lañ. c'est clair ñu ñëpp ay mbokk lañ. am yoo xam ne daal cinéastes yi. Mhm. ak réalisateurs yi. Mhm. Euh, ñun ñooñu sóor a dimbali. mais mais mais thèmes yi aussi de plus en plus par exemple ma tooñ sama grand Ibou Guèye Even Prod bi mu fi indee infidèle problème dafa am cœur brisé même chose tey mu ñëwaat bette bete ñu bari nii dafay wane ni ay bedduwante bañante bu doon am ci xeet yeeg yooyu loolu dépassé nañu ko mhm. ndax yow en tant que actrice culturelle euh, gis-gis boobu nga ci am man gis-gis boobu laa ci am kay loolu dépassé nañ ko ay ay ay ethnie ay kii tëgg la kii géwal la kii jaam la kii non yooyu dépassé nañ ko parce que ñun tamit ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi mm-hmm. dañuy séyante suñu biir xëy na man su ma ak sama doom mu ngi tëgg su ma mm-hmm. ak géwal sama jarbaat mu ngi sëy ak xam nga yooyu dépassé na ma ah, man boog dama point de vue dama point de vue mm-hmm. dépassé naa ah, ah, loolu moom xam nga parce que ñun ñëpp sa yàlla lañ jëm absolument ñun ñëpp amul bàmmeelu tëgg amul bàmmeelu géer amul bàmmeelu njaago bàmmeel yëpp benn la

xëy na moo amoon démb ndax lecture boobu aussi mënuñ mënuñ ko si jàpp. waaw loolu maanaam bari na loo xam ne war nañ ko wane te amuñu woon wa daaray Kocc par exemple wala amuñu woon courage wane ko ñoom loolu lañ bëgg a wane jamono. non non non du loolu xam nga jamono dëgg la nag ñëpp ni nga ko waxee ni nga ko waxee chaque jour dañ ne mm. jamono day dox àdduna mooy dox man leen àdduna doxul nit ñi ñooy doxal àdduna mais àdduna fu mu nekkoon ba léegi mu fa teg man sama baat boobu du ma ko bàyyi di ko wax mhm. ni ngi ñooy changé dëgg la mais booy changé da ngay changé sur le positif mhm. loo xam ne ki koy dëggal wala ki seetaan dina si jëlee njariñ mais fekkee da ngay def loo xam ne ki ngay seetaan da nga koy blessé daf si sentir ne moom da nga koy si société bi mhm. loolu amul njariñ amul amul dëgg nga defal loo xam ne kii koy seetaan ah yi rek et puis maa ngi doon waxtaan ak benn actrice dafa bañ parce que dafa jàpp ni euh, artistes yi wala actrice acteurs yi ci nekk ñoom ñooy pay les pots cassés nee na daal dafa sensible jàpp na ni mhm. mën na yàq lu bare bare ci image artistes yi nga xam ne ñoo joué ñoo joué série boobu artiste mhm. parce que tamit mooy li wax rek euh, lii daal sumbulu mooy wax de synopsis lañ lay jox lii na la expliqué na la lii ak lii ak lii mhm. mais au fond ba lebe si biir ñu bind la benn benn benn boo xam ne xëy na maa si xas ma dem wala maa ngi si xas ma paate yow tu es nga wax nit ki nga ne ko ah, lii de boo ko defee wala nga ko ngay laal parce ay caste la bien sûr da ngay laal da ngay mhm. blessé peut-être que kay am na ku am dégg lii amoon na ay jamono ñu daan ka kaas di ka di ka waxante mais léegi loolu jóge na fi kii amul dégg-dégg bu nag day daal di gis boppam na ah kii man lay xas kii man lay suufeel kii man lay ñàkkal fayda kii man lay nàngam mm-hmm. te effectivement moom noonu la koy gis sa fekkee yow ba nga koy wax sa xel sa xalaatul ne mm-hmm. da nga da nga ko wax pour blesser mais da pour defar moo tax toujours ñun les artistes ñun nous les artistes ñun dañuy sànni quoi. alors li ñuy wax ni aussi c' est vrai que dafa bari ay sujet tabou yoo xam ne dafa nekk ci société bu Sénégal. loolu aussi Tata ndax d' accord nga ci en tant que actrice. lépp luy sujet tabou ci réew mi rek ñu éveiller ko aussi euh, ba sénégal yi xam ko wala ñu découvrir ko jàpp nga ni loolu war na nekk seen taxawaay yéen. waaw sujet tabou yi moom bari na fi. mais am na sujet tabou yoo xam ne. Euh, dama yaakaar ne nit ki ki ko ko ba màgg war na wax ak doomam bala muy génn ci biti. yar foofu lay commencé éducation de base si biir famille lay commencé diggante yaay ak papa ak bàjjen ak nijaay yumpaa ngi si biir kër gi si je tab yi foofu lañ ko war a waxee ma dem ba du fekk ma sàmba du fekk da ngay togg doom bu nga ne ko ah lii ak lii ak lii boo ko defee kat mhm. lii ak lii lay jur mhm. sa doom bu jigéen nga toggam nga ne ko lii ak lii ak lii boo ko defee wala lii ak lii boo ko waxee lii lay jur mais lii ak lii boo ko defee lii ak lii boo ko defee di si am bravo mhm. xam nga ni xale bi bu koy màgguwaal bu da koy xam mais doo fekk comme ñun Sénégal ni am na na xam ne eh dégg wax sax du saaga fekk la wax xam nga boo ne sama ndey eh demal si sa ndey ñu naan waaye kii du mu réewee nag dama kaan mhm, mhm. fekk pourtant ndey du dara yaay la yaay la mais kii xam ne amul dégg-dégg boobu musul dégg lu moo ndey comme citadins yi dëkk Dakar am na xale yoo xam ne boo leen ma ndey duñu xam lan mooy ndey ay maman ak ay papa mhm, di moo yaay mais la ko dégg xam nga ku mel noonu boo xewle da dee mu ne muy jooy da mu ne diw def ma saaga mais bu la de def ma saaga kay dégg moo ndey ba dina xam ne saagu ko. Hmm. mal interprète la ñun loolu moo loolu moo loolu moo nekk si ñun. mais si jotam xoolale ñi nga xam ne ñu nekk si télé yi di waaraate. ñi nga xam ne ay ustaas lañ. mais am na ñoom ñu ngi ñuy waar de mais am na moo yoo xam ne tabu bu nga dëgg am na moo yoo xam ne ñoom hmm. nu ñu la koy waxee ak nu ba yow di nga am dégg-dégg kii li mu bëgg wax lan la. Hmm. mais te du jaar sax si moo du dëgg mais bu fekkee da nga ne nit ki man moo bi dama bëgg nga jaar directement ci moo bi. tamit dafay xaw a doy waar parce que ay kilifa da koy seetaan ay xale dañ koy seetaan. te xale lu mu dégg nga ko si télé bi bu génnee da koy fowe. c'est ah, ah. maa ngi doon dégg sama benn xarit di ma wax nee na bu njëkk dafa am ay euh, actrices culturelles yu fi nekkoon mais léegi dafa gis ni dafa ay personnages d' influence maanaam léegi li ñuy joué lu ci bari dafay aju ci luy influencer xale yi. ci mhm. ci loo xam ne xëy na xaw na wute ak éducation wala tolli lu na société bi ndax gis-gis boobu am nga ko yow ci évolution li nga xam ne mooy cinéma fii. maanaam influence bu mel nan bu mel façon générale xëy na moom noonu la ko bëggoon a waxee jàpp na en tout cas li li ngeen waroon adopté en tout cas ci film yeeg yooyu lu jëm ci éducation bareetul léegi. <laughs> waaw mooy li li xew nii rek mooy li xew nii. actuellement jamono bi. Mm-hmm. mooy li xew nii actuellement si jamono bi xam nga euh, dañ ne dañuy rénover waaw dañuy dañuy topp. Mm-hmm. parce que ñu bu fekkee dañu war a topp européens yi wala topp américains yi si seen défin ñun bokk ñoom aada bokk ñoom ñoom cosaan. léegi nag yoo bëgg sa série jar. wala bëgg ñu ne ah diw de série muy def diw de série muy def ba nga def loo nit ki loo xam ne jaaduwul wala nga nit ki bëgg bëgg wane boppam sol loo xam ne jaadu parce que mm. yenn saa yi tamit euh, du du du du ci scénariste bi question ah, parce que yenn saa yi xale yu jigéen yi ñooy bëgg wane seen bopp surtout xale yi léegi ah surtout surtout xale xale yi xew léegi bien sûr c'est ça <laughs> ñu bëgg a wane seen bopp mm. ba sol solin boo xam ne c'est pas adéquat bëgg a wane seen bopp boo xam ne bii c'est pas adéquat dañuy fàtte ne ñoom li ñuy sol wala li ñuy def wala li ñuy wax archive lay doon. Mhm. ba cinquante ans après. Mhm. dañ la koy génne di la ko mhm. tegal. fekk nga am ay doom fekk nga am ay sët nga toog rek seetaan rek bés rek fekk sa image yaa ngi solo lu doy waar. moment boobu nga koy def xëy na du doon dala si parce que da nga naan xale laa dama ci toll. mais xalaat da nga ñaan yàlla doon mag. da nga ñaan yàlla am njaboot te boobu ëllëgee bu njaboot gi toggee day xaw a day la preuve ñun daaray fan yi booy gis suñu suñu suñu pièces yu yàgg yi dama gis li gars di ko capturer di ma ko envoyé ma naan li fan lay jaar fa gars di ko capturer la ko gars yi di capturer ma ko ma ma woo mm-hmm. man ko waa koy fàtte man mi ko joué sax dama koy fàtte mun ma xamoo pièce ma mun na ma tel tel tel tel pièce maanaam ah, ba tey la muy ko tey tey nii suba mm-hmm. tey envoyé nañ ma quatre capture yoo xam ne yi mm-hmm. même pièce bi dama toog di xalaat pièce bi ban pièce. fan la woon ba léegi xam nga ba léegi sénégalais yi ah. ñu ngi koy ñu ngi koy seetaan mais mu ngi ànd ak jamono éducation d'accord ah, ah, mhm. ba léegi ñu ngi koy seetaan mhm. muy ànd ak jamono parce que dama mhm. wax ne Seydou Yane Diop euh, yal na ko yàlla yërëm mosoon na toog ñu toog daaree ko ci mu ne ma fekk mu bañ a fekk li may joué nii yëpp actualité lay doon ëllëg ak si biir ah bon actualité lay doon ñu indiwaat un DG peut encaisser un autre bu ñu indiwaat un DG nga xam ne lépp dëgg la lii nga xam ne moo xew yëpp yëpp yëpp si jamono bi léegi si àddina bi yëpp Cheikh Tidiane Diop da ko bind joué ko. Mhm. avant dara di xew. moo tax man bu ma gisee benn pièce di daw léeg-léeg man damaa xam yàgg man ah léeg-léeg kenn ne la man de yéen a tax sax may def théâtre waa Daaray Kocc bu defee ma man ah mbaa doo def comme yi xew léegi waa mm. Daaray Kocc dafa ñu yooyu de mais mm, mm, ba si sëy bi ñuy tourné nii léeg ñu toog mën a paap mun naa ah, mën a ah, ka xale jigéen seen solo nañ ko xool de d'accord ñun duñu gars yi de ñun Daaray Kocc la mais mais tata nee nañu jamono léegi foofu la toll ba pare société bi aussi maanaam ñoom ñoom li ñu bëgg moom la leen a <laughs> Mm. mën a bàyyi nit ki def loo xam ne yow xalaat xool leer na la yow sa doom doo ko bàyyi muy def lii sa doom doo ko bàyyi muy sol lii léeg-léeg nga gis nag xale bu dëgër bopp xanaka mm. li nga sol bëgguma ko changé ko doo sol nangam ak nangam mun la yii tata bàyyi rek bii moom baax bii gën a adéquat si séquence bi mm. te insiste mu insister te obligé nga bàyyi ko mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. mais xale bu neex a waxal bu toogee nga wax xam li nga sol c'est pas adéquat par rapport ak nangam bu dee bu am dégg day daal di bàyyi absolument parce que day xam li fi ngay mm-hmm. waxee ak moom fan la ndax ëllëg moo tax mm-hmm. am na xale yoo xam ne seen yaay bu leen di bàyyi ñuy dem daan ah fexeel boo demee fa sol yër gu bon wala bu fa waxoo bu bon dañ koy wax xale dañ mën a ah, sama yaay mhm. ma def nangam de mhm. mais xam kooku neex na waxal absolument mais ki nga xam ne ki déggalul waajuram wala muy génn waajuram xamul fan la dem wala tàggul ne maa ngi dafa am ku doon waxtaanal mu ne ma li wanal ni théâtre soxlawul jàng nee na par exemple Ara Mère Chaba macha allah da nga fa joué lu am solo mhm. mais yàlla may la possibilité nga joué ak ay xale yoo xam ne ne xëy na defuñu formation ci lii de théâtre terewul aussi gis nañu réussir bi ci am jàpp nga ni théâtre de façon générale jafatina def jaratina def formation waaw théâtre moom hmm. dafa laaj formation a ah bon waaw ànd ak yi xale yi léegi ñu ngi joué lu rafet xam nga lii si télé bi mooy wax sax lii si télé bi du théâtre loolu ay téléfilm la ay série la hmm. théâtre dëgg ça se fait sur les planches da dem Sorano wala nga dem beneen kii nga yéeg ni ngi jënd ticket jàkkaarloo ngay joué. loo boo ne boo juumee. Mhm. doo mën a dellu gannaaw. théâtre dëgg loolu mooy théâtre mhm. lii ay téléfilm rek la da ngay wax nga jëm ñu kët changé nga waxaat jeex mhm. na xam ko kooku nga jàng bañ ko jàng sans faire rien du tout absolument waaw mais ki ko jàng nag théâtre ki ko jàng daf série ba muy def wala théâtre téléfilm ba muy def da si gërëm fa gën a yombalal parce que kii mësul def tele bu commencé rek yow mi si tax di nga xam ne kii kat tàmmul télé bi mhm. si waxinam si gestam ngay xam ne kii mësul def mhm. mais kii ko jàng sur scène bu toggee ci télé bi da nga naan kii def si yàgg parce que fa mu ko jaaree la ñun dañoo tar bi dañoo jàng daara ko di jàng di jàng di jàng di jàng ba jamono yàlla tey ma xëy yow mhm. man damay def ay formation man mi di wax yow man ba léegi bàyyi yaa ngi def ay formation man ba léegi de arku tëngëj gi ma doon présidente nekk fii di jàngal xale yi théâtre di jàngal ni ñuy taxawee ni ñuy waxee ni ñuy doxalee hmm. euh, euh, masque leen koy jàngal da war a mer a mer nga war a ree wala waroo koy jàngal nit ki mais fekkee yow jàngoo ko mënuloo ko nga ñëw tëb tëb ñu dugal am problème diction da nga am problème mu nooy taxawee da nga am problème mu nooy wax ak nit ki hmm. war a fixer war a waroo fixer nit ki waaw léeg-léeg nag ñu boot la ci série yi wala ci téléfilm yi ñu boot laa hmm. koo xam na kii c'est la première fois mu taxaw devant la caméra. ok donc bu boobaa yow yow yaa am problème. yow yow yow mi jàkka yaa am problème. yaa am problème parce que fa nga bëgg mu ñëw fa du fa ñëw. bu tam moom bu ñëw rek day daal di arrêté taxaw parce que naan juum naa de. Hmm. on est obligé couper de prendre beaucoup de temps beaucoup de temps ngoon daal dama ne xale yi nañ dem jàngi théâtre fi jàngale théâtre fi jàngale théâtre ñu xam ne mën nañ soo leen waxee ñu dem yóbbu la centre de formation yi mm. nga jàng comme ça ba ëllëg daf la koy yombalal d' très bien suñu tata Marim Niang moom la seen bës doon am jotaay mm-hmm. xanaa rek pour jeexal aussi tata mm-hmm. depuis Armel Thiaba ba léegi sénégalais yi ñu ngi lay laaj macha allah mu mm-hmm. am réussir total sénégalais <laughs> ba nit ñi dañ ma koy laaj di ma ko laaj guddi bëccëg damay tontu doon mujj gis dama xam lu may tontu mm. euh, mais comme aramer ca ba ma ko dañ may joué seen ñoo ko moom mm-hmm. euh, ñu dénkoon liggéey bi mm-hmm. produ euh, producteur bi Mass Marodi mm-hmm. ah ñoom fekkee dañ ne dañ koy continuer ak man xayrun fekkee dañ koy def wala defuñu ko wala ñu ko keneen xayrun yëpp benn ñu sommes tous des acteurs et des bu fekkee dañ koy continuer woo moom ma dem liggéey ak ñoom bu fekkee dañ koy continuer ba ak keneen amul benn problème parce que man maa ngi nekk ci beneen maison de production actuellement di liggéey ak ñoom. c'est vrai que pause bi yàgg na Sénégalais ñu ngi koy laaj aussi. ah Mass Ndour waaw xam nga arrêté ba koor la koor la woon. ah d'accord koor la woon mhm. bu njëkk bu du woon koor nag. mais dañ doon tund ba koor dab ñu mais bu daaw bi ne dañ lañ koy def si koor gi rek hmm. bàyyi mu nekk benn weeru koor gi hmm. te buñ ko doon defaat aussi weeru koor gi lay doon mais comme waxanguñ ma hmm. ngi liggéey ak ñeneen waa d'accord alors maa ngi lancé message Mansour Ndour sénégalais yi ñu ngi laaj wax dëgg yàlla arameer Thiaba ak suñu yaay ji di mama tata Marème Niang tata vraiment pour finir maa ngi doon am mbégte bu baax a baax si jotaay di la gërëmaat c'était vraiment pour may baax bi dem naa jël ko émission muy ku baax vraiment. ku baax ku yaatu ñu koy jaale groupe Daaray Kocc yëpp di ñaan yàlla vraiment yàlla xaaree ko aljanna yàlla may xolu muñ njabootam ak képp koo xam ne am di jàmm nga ak jege ñaala maa ngi doon am mbégte si jotaay bi Tata Marème Niang kontaan naa jërëjëf euh, waa seen buzz euh, maa ngi leen di ñaanal yéen tamit yàlla defal leen ndam euh, yokku leen ba ngeen yëkk defal leen seen buzz mu nekk télé bu mag a mag boo xam ne ñëpp dañ si gis seen bopp ndax ay xale ngeen ay ndaw ngeen te yéen dawal seen wàll ci ci ci ci ci ci tool bi ngoon yàlla na yàlla def tool bi ñëpp béy waar ba ko nekk la nga bëgg nga am ko di gërëm di sant di sant ñëpp koo xam ne yaa ngi doon seetaan seen buzz di ñaan rek yëf yi gën a yokk gën a màgg ñaanal way dawla yi yàlla na yàlla yërëm leen ñoom tamit xaar na àjjana firdawsi ñun ñi fi des yaa ñu fi yàgg te ànd ak sa barke alayhi salaatu wasalaam mais mais mënuma bañ a lancer message aussi sponsor yëg ak képp koo xam ne rek wax dëgg yàlla ku bëgg culture nga <laughs> mu ñëw aussi teg loxo ci projet bi nga xamee ni jamono ji daaray Kocc ñu waaw daaray xam ne ne série dafa laaj xaalis bien euh, nañ ko nag mais yeggangul euh, ñu bëgg rek ku si mën a def loxo rek nga def si loxo rek jàppale ñu pour euh, suñu pièce boobu te pièce boobu te pièce la Mm. nda démb euh, daal ko ci fu mu nekkoon du fa jóg te démb moo tax pièce bi jóg. Hmm. mais tamit boole nañ si loo xam ne pour pour pour génération future bi nga xam ne. Hmm. ñoo nekk ci ci yoon bi di ñëw. ñu ngi ci biir film bi. Hmm. ndax tamit daanaka ko ci ñu fa nekkoon ñu ne ay mag ba nga xam ne ngi ci biir film bi te pièce wax dëgg yàlla pièce su démb la macha allah. ngoon ñu ngi ñaan ñëpp yal na si yàlla def jàmm daal. amiin yaa rabbi merci